ginnaaw bu ñu santee borom bi tabaraka wa taala julli ci yonantu bi sallallahu alayhi wa ñu ngi am mbégte kontaante àndaat ak yéen ci suñu dar yi nga xam ne ñu ngi koy jël ci kitaabul muwatta tey nag di suñu ñetteelu dars ci téere bi ginnaaw bañ jàngee kitaabu wuquti sola muy bunt boobu nga xam ne ñu ngi ciy jàngale waxtu julli yi ñu yaataloon ci mu doonoon suñu dars bi weesu ni ki noonu jël nañ bunt bi nga xam ne ci lañ jànge waxtu julli jumaa te yaakaar naa ni ci xadis boobu ci lañ taxawoon muy xadis boobu nga xam ni yaxya nettali na jële ci maalik mu jëlee ci baay texam bi ñuy wax abi suhayl ibn malik mu jëlee ci baayam malik mu ne kuntu ara tinfifatan li aqil ibn abi talib يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشي الطنفة كلها ظل ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعه mu jàngale ci xadis boobu waxtu wi nga xam ne ci lañuy julli juma mooy waxtu njolloor li nga xamee ni jant bi génn na ba e, tollu ci digg bi muy waxtu tusbaar tey nag ñu war a jàng bunt bu bees mooy baabu man adraka rak'atan min as-salaat maanaam ku ñëwoon fekk mbooloo di julli nga joteeg mbooloo mi maanaam nga fekk mbooloo mi ñu julli ba dese benn ràkka nga fekk leen ci ràkka boobu xadis boobu lañuy jàngi tey mu ne an yaxya xaddasani yaxya an malik an ibni shihab an abihi wala an abi salamata ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة mu ne jëlee nañ ci euh, jëlee nañ ci yaxya bni yaxya allaysi waxoon nañ leen kim doon yaxya bni yaxya allaysi jëlee ci ki nga xam ne mooy al imaamu malik al ci ibnu shihab waxoon nañ leen kim doon mooy sëriñu imaamu malik kenn la ci ay sëriñam ibnu shihab jëlee ci abi salamata ibnu abdirahman abi doomu abdirahman moom mooy abdullah ibnu abdirahman ibnu awf ibnu abdu awf ibnu alxaaris ibnu zahrata ñu di ko dakkantale abi abdirahman moom nag ku bëgg xam graatam ci wàllu xadiis eh, boroom xam-xam yi nee nañ ثقلة إمام لا تكوبري لموكل تي أي حديث لن كون كوكو دينن جل أي وخم مجلة أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة رضي الله عنه نه يرنتبي صلى الله عليه وسلم دفع وحني من أدرك ركعة من الصلاة كيف كجر أبركة جولي فقد أدرك الصلاة كوكو jot na mbooloo mi maanaam ku dabe ci jullab mbooloo jot benn rakk rekk kooku am na am na julli julleem wér na maanaam bokk na ci mbooloo mi boobu nag xadis bu gàtt la waaye xadis bu bari solo la ndax eh, man adraka salaata boo demee ci firikatu xadis bi dañuy wax ni laa yajuuzu an yurida annahu qad adraka jamiaha bilfial wa innama almuraadu annahu adraka xukmaha maanaam waxin wi mën nga ko dégg foog ni dane képp ku fekkee benn ràkk ci julli rek sa julli mat na waxeewut foofu maanaam képp ku fekkee benn ràkk ci julli jullik mbooloo am nga yoolab julli mbooloo loolu la bëgg a jàngale kon nag xadis bi dafa laaj déggin loolu moo waral ñuy dem seeti boroom xam-xam yi firi yi nga xam ne ñu ngi koy firi xadis yi ngir ñu mën koo dégg kon yem ci jàngu yaxum arab bi rekk mën nañoo indil ay njuumte ndax ku firi xadis bi niñ ko waxee man adraka rakaatan eh, faqad adraka sala ku jot benn ràkk ci julli ko jot nga julli ji mun nañ ko déggee ni ku jot benn ràkk ci julli gi sa julli mat na te jubluwu ci loolu lim ci jublu mooy képp koo xam ne ay e, képp ku jot benn ràkk ci julli jot nga atteb ku julli julli mbooloo jot nga atteb ku julli julli mbooloo kon nag loolu benn firin la beneen firi bi mooy képp ku jot maanaam képp ku julli benn rakka waxtu wa jeex te sa julli matagul yow tamit jot nga waxtu wi ñaar yooyu yépp dañ ko ci dañ koy firee xadis boobu nga xam ne xadis bu gàtt la waaye làmboo ay njëriñ yu bari nit ki nag buy dabe ci julli faw mu def li ñu tuddee takbiratul ihram kàbbarook xarmal boo xam ne moo koy fas ci yéene tàbbi ci julli googu nga mën ci déggee ni nag kon su fekkee danga fas rakka rakka gi mata gut waxtu wi jeex yow bokkatoo ci waxtu wi ci fay nga ne ci fay nga ne niki noonu boo ñëwee fekk ñu siggi ci rukkoo rakka bu rakka bu mujj bi dangay ngay ànd ak mbooloo mi mais amoo rakka ndax ñu ngi dabee rakka ci euh, nu mu tudd ca loolu nga xam ne moom mooy rukkoo kon xadis boobu mi ngi noonu xadis bu ama am solo la ba tey mu ne wa xaddasani an Malik nettali nañ ma jëlee ci imaamu malik radiallahu anhu mu ne jëlee na ci naafi'a ne abdullah ibnu amar radiallahu anhu anhuma ñoom dañ daan wax ni maanaam abdullah ibnu amar daan na wax ni ida faatatka rakaatu faatatka sajdatu su la sujuud gi faatee rek yow rakaa faat na la إنه قد يدرك الركعة في الوقت من يدرك السجدة معنى واخ جوجو nga عبد الله بن عمر رضي الله عنه موكو واخني اذا فاتتك الركعه فقد فاتتك السجده دو واخو يونت صلى الله عليه وسلم لولو نا لير لم تي جبلو موي يعني انه يفوت الاعتداد بها لان ادراكها من جهه الفعل مشاهد wala xilaafa bayna al umma man adraka sajdatan min min salaati al imaami fa biha képp koo xam ne maanaam liñ ci jublu mooy duñ ko limaale ci rakkaa yi képp ku sujud faat rakka boobu faat na la kon rakka boobu duñ ko limaale ci rakkaa yi ndax boroom xam-xam yi dëppoo nañ ni képp koo xam ne jotoo danga dabee ci sujud yow rakka boobu duñ la ko musliman eh, moo tax imaamu malik radiallahu anhu eh, nettali lii jëlee ci abdullah ibnu omar ak zeyd ibnu saabit ñu ne kaana yaqulaani man adraka rakaata faqad adraka sujuda képp koo xam ne jot na rakaa bi rek dina jot sujud bi maanaam xam nga sujud rukoo ko njëkk balaa ngaa fekkee sujud faaw nga fekkee ruko mën ngaa fekke sujud te fekke waru ko bu boobaa nag ñaari wax yi ñu taxaw ci jéem koo régler maanaam wax ju mujj ji dafay wax ni ku fekkee sujjóot am nga rakka wax ju njëkk ji dafay wax ni ku fekkee sujjóot amu rakka ñaari wax yooyu nag mooy man adraka rakaata faqad adraka sajda liñ ci namm mooy yuridu anna bi idraaki sajdati al i'tidaadu biha wa hada innama yakunu fi salaati فمن أدرك الركعة من صلاة الإمام فإنه يعتد بالسجدة التي بعدها ولا يصح مثل هذا الوقت فإنه قد يدرك الركعة في الوقت من لا يدرك السجدة كون لولو ليرنا لولو لمي سيرنا رك موي وخي بن كو موي كفكر كون فات يو مومو بوبو فات نلا اه، باتاي مني وحدثني آه، عن مالك نتل نجم مالك منه آه، أنه بلغه لما مجوه نجوت نكوني آه، عبد الله بن عمر أكزيد بن ثابت نيوم دان دان وحني من أدرك ركعة فقط أدرك السجدة كيف كفك ركعة دينا فك سجود ولا كيف كفك سجود دينا فك ركعة دي وحدثني يحيى يحيى نتلنا ما عن مالك جريتي مالك ne jot na ci xibaar ne aba hurayrata radiallahu anhu dafa daan wax ni man adraka rakaata faqad adraka sajdata képp koo xam ne e, jot nga rakaa bi di nga jot sujud bi wa man faatatuhu qiraatu ummul quraan faqad faatatuhu xeyrun kasiir képp ku fekkee ko te fekke woo njàngum fatiha yiw wu rëy rëy rëy faat na la loolu woon ni amoo julli am nga julli te bokk nga ci ràkka bi waaye yiw wu rëy rëy rëy faat na la kon bunt boobu foofu la yem ñu dem ci beneen bunt muy ñeenteelu bunt bi muy baabu ma jaa fi duluki shamsi wa xasaqi layl bunt bi nga xam ne dafa ñëw ci di jàngale fenkuk jant bi ak kukk guddi gi maanaam leer ak jant gi ak kukk ak guddi gi موي حديث نمبر 19 حدثني يحيى يحيى بن يحيى الليثي نتلنا ما عن مالك جليتي مالك عن نافع مجليتي نافع نافع ني ان عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر دفع وحني أه كان يقول دلوك الشمس ميلها دفع دان وحني دلوك الشمس بوين كو بغي خم موي جانت بي جنگ جيني جنگ مانام جولور جانت بي loolu benn la kon loolu moom la Naafi wax ba kon loolu leer na ba tey mu ne wax xaddatani nettali na ma an malikin ci malik malik jëlee ci daawud ibnu ne axbarani muxbirun ab xibaarkat xibaar na ma ni anna abdullah ibnu abbas ne abdullah ibnu abbas wax ni duluuku shamsi ida faa al fayu wa xasaqu leyl ijtimaau leyli wa zulmatuhu mu ne abdullahi e, abdullahi ibnu abbas radiallahu anhu daan na wax ni duluuku shamsi maanaam fenk ak jant bi moom ida faa al fayu maanaam saa wo nga xamee ni jeng na maanaam jant bi jeng na maanaam buñ demee ba ida saara zillu kulli shay'in mislahu foofu lay yem maanaam bu jant bi génnee bam tollu bañ dem ba takkandeeru lu ne daa tollook moroomam maanaam buñ ne faa al fay u maanaam bu jant bi jengee ci lu tollu ziraa maanaam xasab loolu mooy duluug waxtu woowu nag waxtu mooy waxtu taxawal julli mbooloo ci tusubaar kon nag duluuku shams mooy bu jant bi jengee wala buñ buñ tollee ci njolloor jant bi jeng lu tolloog ziraa maanaam xasab wa duluug euh, dinañ bi ci des mooy euh, xasaqu layl mu ne ijtimaawul layli wa zulmatuhu daje gi nga xam ne guddi gi na ko dajeeg lëndëma maanaam kukk ak guddi gi loolu melo la boo xam ne borom xam-xam yi dëppoo nañ ci wane ni loolu mooy rasaxul layl kon alquran ñëw na di jàngale waxtu tusbaar ak waxtu ak e, gée ak timis ndax mooy sawaadu rasaxul layl mooy sawaadu layl kon xadis boobu tamit xadis bu am solo la e, xadis bu am am solo la ñu jow ci beneen buntu bu ci topp mooy baabu jaamiu luquut mooy buntu bi nga xam ne moom ci lañu dajale waxtu yi baabu jaamiu luquut ci lañ dajale waxtu yi buntu boobu nag e, xadis bi ci njëkk mooy xadis bi nga xam ne mu ngi mooy xadis numéro 21 muy wax ni xaddasani yaxya an malik an nafi an abdullah ibn umar an rasul allahi sallallahu alayhi wa sallam qaal الذي الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله ولا أهله وماله borom xam-xam yi nag wuute nañ ci faat gi nga xam ne moom la tudd fii ci faat ak julli tàkkusaan ndax xadis bi dafay jàngale ne e, yaxya dafa nettali jëlee malik malik dafa nettali jëlee ci yaxya mu jëlee ci naafi naafi jëlee ci abdullah ibn omar mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne ki nga xamne ne jullik tàkkusaan daf ko faat kok dafa melni wutira wuttira ahlahu wa maalahu ay anna witra ahlihi wa malihi fawatu sawaabihi yudaxar lahu fa yakunu ma fatahu min sawaabi salati al asr fi waqtiha mithla ma fata al-mawturu min as-sawaabi al-jaziir manam képp koo xam ne faat na ko wuttira xaajeef na ahlahu njabootam wa maalahu ak alalam maanaam lim ci jublu mu ne mu ne firikat yi dañoo wax ni yuridu bihi lim ci namm ni mooy anna witra ahlihi genn wàll ak njabootam ak alalam fawaatu sawaabi yi dañuy faat maanaam dañuy perte yool wax yool woowu nga xam ne moom lañ leen doon dencal ci ngëneel googu nga xam ne suñ borom subhanahu wa taala defal na leen ko kon nag julli ci waxtu wa dafa am solo loolu rek la xadis bi bëgg jàngal ba tey xadis bi topp mu ne wa xaddasani an malik nettali nañ ma jëlee ci malik an yaxya ibn said mu jëlee ci yaxya ibn said mu jë mu ne عمر بن الخطاب رضي الله عنه انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر fa dakara lahu rajulu al fa qaala Omar tafatta Seydina Omar dafa dajeeg benn waay maanaam dafa wax ni Seydina Omar ibn al-Khattab dafa julli tàkkusaan ba pare di ñibbi dajeeg benn waay ne ko lu la teree julli fi waa ji wax mu ne ko tafat ya eh, tafatka bi maana eh, kooku nga xam ne dafa tardé julli lim ko bëgg a wax rek mooy faat nga yiw lu baree bari bari bari bari ci jullik mbooloo gi nga xamee bi nga xam ni danga ko faat moo tax foofu مالك دفوه ويقال لشيء وفاء وتفطيط مانام نام دينا وخ نيت و... دينا وخ دارا وفاء موي لون ماتالي دينا وخ تفطيط موي لو خامني ايتامي دنجكو تطفيف بوك لو خامني دنجكو ماتالي موي لول نك قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك الصلاه لم وخ حديث بي ايه ايه muy xadis bi nga xam ne moom lañ jiitaloon sànq mu ne képp koo xam ne julli na balaa jant bi di so kooku jot na julli bi léegi nag ki nga xam ne dafa tardé ci mbooloo mi lim faat mooy yiw wu bari waaye du tax mu faatu mu faat li nga xam ne moom mooy waxtu julli bi kon xadis boobu yi tamit xadis bu am solo la boo gisee ci xadis bu njëkk bi mu ne képp koo xam ne julli tàkkusaan faat na la maanaam li muy tuddee faat mooy nga toog ba jant bi jeng kooku mënatoo joxe julli bi ci waxtoog waaye li ngay def mooy fay kon xadis boobu itam xadis bu ama am solo xadisu ñaar fukkeel bi ak ñett mooy xaddasani an malik nettali na ma jëlee ci malik an yaxya bnu said malik jëlee ci yaxya bnu said annahu kaana yaqul ne yaxya bnu said daan na wax ni inna almusalli la yusalli salaata jullikat bi dina julli ab julli wa ma faatahu waqtuha te waxtu bi du ko faat wa lamma faatahu min waqtiha acdam aw afdal min ahlihi wa maalihi mu ne li nga xam ne moo koy faat ci waxtu wi moo gën moo gën njabootam moo gën alalam maanaam alal ak njaboot buñ la tax a faat waxtu loolu rek moom mooy wax ji maanaam e, xadis boobu nga xam ne xadisu Yaxya ibnu Saïd la bu mu jëlee ci Omar ibnu Xattaab radiallahu anhu li mu jàngale rek mooy kenn ku nekk ci ñun bu ko yittey àdduna ak njaboot ak i alal tax muy faat waxtu yi nga xam ne moom mooy waxtu julli ba tey yaxyaa nettali maalik jëlee ci moom ne man addakal waxta huwa fi safarin képp ku jot maanaam waxtu wi dab fekk yaa ngi ci tukki fa axara salaata saahiyan aw naafiyan mu yéexee julli ndax njuumte wala fàtte kama qadima ala ahlihi xatta qadima ala ahlihi ba ñëw ci njabootam mu ne euh, kooku nga xam ne euh, dafa dafa dafa fàtte moo ko jàpp wala sax euh, nu mu tudd njuumte jàpp ko bam ñëw ci biir njabootam kooku nag di ko war mooy euh, ka anna anhahunna kaana Eh, maanaam li mu bëgg a wax ci ci xadis bi mooy ki nga xam ne dafa doon tukki léegi nag mu dem ba nga xam ni fàtte na julli googu nga xam ne moom mooy waxtu julli wi ba julli wi paase ba ñëw ci biir njabootam léegi nag bu ñëwee ci biir euh, njabootam fekk ni julli yi mu waroon a julli julleegu leen maanaam ba tey mi ngi ci ci waxtu woowu nga xam ne waxtu la wum faat mu ne ki nga xam ne aji tukki la man adrakal waxta wawa musaafir dafa doon tukki waxtu bi dab ko mu yéexee julli ngir njuumte wala fàtte ba ñëw ci njabootam mu ne annahu in kaana qadima ala ahlihi wawa fil bu fekkee dafa ñëw ci mbokkam yi fekk mi ngi ci waxtu wi na julli julli aji salaatal muqim maanaam namatal julli gi bu mu wàññi wa in kaana qadima wa qad zahaba waxtu bu fekkee dafa ñëw fekk waxtu wi jeex na julli jullik safar julli guñu wàññi li annahu innama yaqdi misla alladi kaana alayhi ndax day fay te li muy fay mooy li ko waroon ndax tukki bi li ko ci war mooy wa wàññi julli مالك نك موي واخ موني وهذا الامر هو الذي ادركت عليه الناس موني لي لا فك نيت ني نك سي واهل العلم في بلدنا بروم خم خم يي نك سونو دك بي تامي سي لي لا فك ني نك سي وقال مالك مالك واخني الشفق بو ديغي شفق نك في حديث بي mooy alxumratu allati fi lmaghrib mooy jant wi xonq boobu nga xam ne mu ngi koy xonq buy sox xonq googu nag saa yu demee rek julli gee faqad wajabat salaatul isa julli gee jot na waxtu timis jeex na loolu la imaamu malik jàngale ci xadis boobu xadis bi si topp muy xadis numéro 24 mu ne wa xaddatani nettali nañ ma an wa xaddatani nettali ma عن مالك جليت مالك عن نافع مجليت نافع من أن عبد الله بن عمر يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أغمي عليه فخمون فذهب عقله كلام دار دم فلم يقضي الصلاة فيبتل إمام مالك نك دف في حديث بوب من وذلك فيما نرى وذلك من لول فيما نرى تلون جس نون تسون جس جس والله أعلم يلا كم أن الوقت قد ذهب ne waxtu wi dafa jeex fa amma man afaaqa fil waxti ki nga xam ne nag dafa xamoon ximmaliku ci waxtu bi naw fa sal yusalli dafay julli waxtu woowu loolu nag euh, liñ ci jublu mooy liñ ci jublu mooy ni euh, euh, maanaam ki nga xam ne dafa xamoon ci waxtu julli wi julli daf ko wàcc ndax kooku àndatul nan ak sagoom julli waru ko su ximmalikoo ci biir waxtu wi nag julli daf koy waraat daf koy fay waaye bu ximmalikoo fekk waxtu wi jeex julli boobu du ko fay loolu la Abdullah ibn Omar def fi muy lu ama ama am solo mooy xadis boobu nga xam ne moom lañ jàng léegi eh, bi ci topp yi tamit mooy qaala mooy xadis bi nga xam ne moom la ñuy mujjee suñu dars bi tey insha allah wala sax ñu taxawandi ci xadis bii ñu taxaw ni insha allah buñ ñëwee beneen yoon ñu ñëw ci baabu naw mi ani salaa allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatihi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa nasiri alxaq bilxaq